xanaa nuy julli ci yonente bi muhammadu rasulullahi salallahu taala alayhi wa sallam di sant Serigne Touba di ñaan Serigne Muntaxa sunu borom yàggal ko fi te wéral ko ba naal yi mu naalal suñu yaakaar ja xaadimu rasul nga xam ne dafa liggéeyal suñu borom ci jëmu ju tedd jooju jaar ci jëmu ju tedd jooju liggéeyal sunu borom ba yëf yi egsi fii tey ñu nekk ci jàmm sàmm sunu ngor xam sunu diine fas sunu jom mu xëriñ ci liggéey ak jàmm yàlla ñu ngi ñaan jëmm jooju sunu borom doole nu ko leer muy sant wayjur yu baax ya jiitu woon di sunu turandoo di Serigne Cheikh Gaynde Fatma di ko tàmbalee nag ca Cheikh Mamadou Moustapha jaar ci Cheikh Mamadou Fadal jaar ci Serigne Abdoulahi Lahat ak xulafaaw yi fi jaar yépp ak seeni rak ak ñañ bokkal sëñ Touba muy góor ak jigéen di leen ziyaare seeni njaboot ak Cheikh sa àndoon ak Serigne Touba xamne ne ñun ñi tok kenn muccul ca ñooña digënte sëriñ bi ak cheikh sa ak dongo yu mag ya kon noongi ngi euh, gërëm ñooñu di leen sant di ñaan ngërëmal yalla tàbbi ci ñoom euh, di delu santat ci turu njabootu sëriñ Aliou gi nga xamne ne sunu jëwriñ moy sëriñ khadim mi tok te mu nekk fi ak njabootu sëñ Aliou gep góor ak jigéen ñëpp kenn mànkiwul ñëpp a ngi fiy toog ci baas bi euh, ñu ngi leen di wax marhaban ahlan wa sahlan di ko wax sëriñ Abdourahman ak rakkam yi mu àndal ak wëllëreem yi ak dongo yi euh, di bég lool ci bis bi <coughs> sunu xol ak sunu xel di dellu ci sëriñ Cheikh Gaynde Fatma mu fi wuutaloon Cheikh Mahamadou Moustapha wuutal fi ñu baax ñépp ci am xelam mu rafet ci bëgg lu baaxam ci euh, mën a dem ci ba xam ne sax dafa jiitu woon epogam te Serigne Touba ku mel noonu bi mu fi jógee mënu foon a ñàkk euh, am na la ca gën a tuuti rek tabaxam bii mu tabax ñu koy wax euh, kër di Fall ba léegi jamono dabagu ko <clears throat> ci ci ci saayir rek waxuma la la nga xam ne moo ne ci biir ci ay xalaat ak i projet ak la nga xam ne moom la sëñ Tuubaa digle woon muy liggéey ak jaamu yàlla ak form bu gën a rafet buñ ko mën a gën a defee ca na mu gën a baaxee ca na mu gën a dëppoog sunas Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ak na mu gën a dëppoo ci wataniya waaw lu am solo la bu ma séenee sëñ Moustapha Njëkk sama xel day dem ca loola dafa naa ni am na leetar boo xam ne bu ñu ma invité ci école ba moo ko génnee far ci bagage yi waajuram nga xam ne ba may dem Tunusul asima euh, laa ko ko bind ba ma fa demee ndax ba may départ dama départandoog euh, samay morom ba ñu àggee loola mooy ci gën a guddal ndax dama koy résumé ndax waxtu wi dafa xam kéemaan ya ko lal nag sax dafa bari ndax bu fekkonte ne avion ba ma waroon a dugg amul woon retard amul woon paan dama duma duma du ma woon fekkee wal boobu mu téye ma rek téye ma ñeewante ma bàyyi rek ndekete ba ma demee ba egg xaadim moom sëñ Ibra ndax moom sëñ Ibra mii fi ne woon te ne woon bureau de bourse ne ah yow de bu avion bi kiiwul woon danga nga tardé waaye nag ambarkeel nañ la sa bagage muy kii man gu rëy nga xam ne maa Maamoor dem dafa mujj jox xaalis Maamoor dem mayit mu téyewaat ma ne ma boo demee na nga góorgóorlu ndekke booba da doon tàggoog man ba ma demee ba àgg euh, lam ma jox ma gis ñu wecciku tunusul xartaas ma gis ka ca ëppale loo ñaari junni la am na ku wecciku sax téeméeri dërëm te booba su bur si ñëwagul ma wecc mu jox ma xaalis bu bare bare bare ma wecc ko ko foofu ban demee ba ma demee ba luyee sama kër ba luyee kër dama woo Moussa Niang mooy magi Mambay Niang men am naay seede ak ku ñu wax Malick Sarr ma ngi jàngale anti jël na retraite am ñu ngi waaye ñibbisi ma seddale ko ñetti xaaj ginnaaw bi ma jëlee kër ba noppi séddale ko ñetti xaaj ñu ne ma da dof xanaa lii bourse bii ñëwagul li nga yor nga di ko séddale may leen ki ma ko jox laa koy mottali ñi ngi may dégg kon alhamdulilah jëmm joojee moo saytu woon njabootu Cheikh Mamadou Moustapha boo da rakkam ya ñëpp àndandoo rakkam ya def ko sëriñ mu def leen rakk def leen seen doomi sëriñ waaw muy lu am solo mu marqué jamonoom may wax ne bu fekkoonte ne fàtte amul ñàkk wëllëre amul ak yeneen ak yeneen ci yu mel na ñoom seeni mbokk euh, kon lépp lu ñu ko tudd du taxaw waaw ndax ñépp la jariñ kon alhamdulilah loola buñ ca euh, amee ak wàll dañuy bég lool rawatina doomam ñëw fi fa mu tegoon tànkam rek mu teg fa tànkam نخ خمنا چه دارا نخ موسنو تا گو بینی ول موستام نیت کی بو تا گو ولنگ مام بگن ویاس جرم بینی فکر گیم جرم یار فکر تا موسنو تا گو بین بینی ول یا کنانی امنا نلین باله کن موسنی عبدو موی نیت کو باخ کو خمنه لو باخ رکو کوی تا خیوک فمو یک تا تنکم کلو باخ لکو تک بوسانیون لو فنان کرم دویان دو کرم کلو باخ لی خی di ci gont waxtu wu ne ci lay nekk xam nañ ko bu baax a baax a baax kon alhamdulilah sëñ Abdou ñu ngi lay sant bu baax euh, la ca des mooy yaatalal nanu sagal nanu ci daaru xuddos amul kër gooy dem te diisoowul ak ñoom di laamisoog moom di séqanteeg ñoom jëf ju baax ak wax ju baax ak yéene yu baax amul ci yoon wi fu mu mën a doon man boog fu mu ma gisee xanaa du du càggee ni li may li sama xarit a tax waaye fu ñu ma gisee rek amul néew na ku ma gis te waxoo ma ci moom lu baax la mu fay def loolu nag boo ko amee ci famille da nga ko war a tiitaroo man day bokk naa ci ñi koy tiitaroo wax dëgg yàlla kon nag alhamdulilah nu sant ci bu baax a baax la ci des mooy Cheikh Mouhamadou Moustapha dafa defal xaadimu rasul loo xam ne dama koy faral di wax waxtu wu ne te fu ma toog danaa laaj question boobu waxin rekk nag lay doon nag ma di ko laaj mooy bu indiwul woon xaadimu rasul ci tuubaa naka la du dëkk bii mel tey nu dëkk bii mel foofu rek lay yem euh, rakkam yu baax ya kenn ku ne mbaax googee sëñ Touba defoon ci ñoom ak xar baax ya kenn ku ne boo ñëwee fa sa morom tegoon sa tànk boo ñëwee euh, sëñ Touba day mel ne daa roofu ci yow di la jëfloo di la waxloo di la xalaatloo waaw ba turaas bi ak ci tay fi alhamdulilah moy ñu ci sante bu baaxa baaxa baax a baax kon jëmm jooju jamono lu ma sa xew dafa wax taawunu ala al birri wa taqwa wa la taawunu ala al ismi al udwan lolu la da lan faj jamono docteur la bo xamne da lan pikir jamono diko ko faj te ci concertation lay doon ci waxtan baña umpulente di jaxaso ci saafonte comme nii ko sëriñ Abdourahmane def tey ndax kumpa toll na naw ñay walla mu ëpp ñay kumpa mu ëpp ñay waaw alhamdulilah te Cheikh Mahmoud Moustapha na njabootam ñoom ñëpp kenn ku ci nekk am nga loo bokk ak sa morom bu xam ne bu du woon ak deret Sëriñ Tuubaa ju tedd ji ñooy bokk lu ne démb ñoo koy bokk kam kum ci mën a doon rek am nga loo bokk sa moroom loolu euh, euh, nas la bu am solo boo xam ne format la boo xam ne moo mooy indi solidarité kër gi day ñoo ngi sant ñëpp kenn ko ne yéene nga sa moroom loo lu ëpp loo yéene sa bopp ndax dañ ko roy ca waajur ya sëriñ Cheikh bu ma saan toog sëñ Aliou toog sëñ Dan sëñ Ahma sëñ Saliou ñoom ñëpp bu ma toog da ngay defee ne ay doomi bàjjan lañ dañuy tooñante doomi bàjjan ngeetaan ah loolu lu am solo la loolu lañ daan def kenn ku ne it yéene sa moroom lu ëpp la nga ciw yiw loo yéene sa bopp loola mi ngi fi mu ngi fi bu baax a baax potentiel baa ngi fi waaw potentiel bi mi ngi ci jaboot gi kon loolu nag dañ koy cultiver rek moo ci des jiw wi defal nañu ko waaw li may faral di wax rek ci sëñ Touba li mu defal yoon yu murid yi ak li mu defal mooy wutal nañu oto ci masalan rek ndax mën naa jox mosulul yeneen oluya yu bëree bëri waaye dama ci jël benn rek moo dafa mel daf noo wutal oto bu bees tàq defal nu ci assurance defal nu ci essence jox ñu chauffeur bu mën dawal teg ñu ci ilaa fépp ilaa fépp

def adjudication waaw pour xam société bi koy def après nga àgg ci phase de réalisation sëñ Tuubaa ba muy ñaan di wax ne li ma sun borom defal defalu ko kenn buñ ko masaan wax ilaya qaadalaahuma lam yakuni wala yakun abadan li mumkini mbaar mii nga xam ne fi la déparé jóge fi dem ca géej ga liggéey ba lii mu am ko tey euh, euh, invité naa ab lay Dieye mu ne ma loolu day buñ ko masaan laaj doomu ndar yi dañ naan ah doom létti mag gone du ko firi xamuñu woon firi mi waaye mooy li ma la wax ñaan projet la dafay ñëw contemporain yi mënuñu ko woon a comprendre mais fii nu toll nun nu toog kenn ku ne leer na la ne noo ngi ci phase de réalisation bi ci fi ñu koy war a réaliser kon képp koo xam ne xumaag rawoon na la rawoon na la feneen rawoon na la jàppal ci fii ñu toll nii nga jéem a liggéey sëñ Touba bu baax a baax rawatina boo bokkee ci Cheikh Mamadou Moustapha ak ñu baax ña ba tàmbalee Cheikh Mamadou faadal ba ca Cheikh Mamadou Mourtala muy góor a jigéen dina war a góor góorlu fexe ba wax dëgg yàlla euh, lii nu sëñ Touba bàyyel muy gën a ñaw waxtu wu ne ñu yéeneente jàmm kenn ku ne yéene sa morom jàmm wax dëgg yàlla bu ko defee lolu bu ko defé bo jappé sa morom rek ni nga jappé sa bop ci ni nga koy ñoŋalee ak la nga la ngay saña bëgg amal sa bop ci wuyu boko jappalé sa morom buñ ko defé rek lepp dana bax sëñ ab ñu ngi bu bax ci melokan wi la sun borom melal melokan ni itam law ba ci sëñ Mustafa Astu, ak sarak yépp xamna len kenn par kenn no bokon di jang li ci ëpp xamna na ngeen démé wax deug yalla bless jang gele dafa am ku ma wax dañu am fërëm ku ma wax kilifa la ne ma ban fa nekkandoog yéen amoon nañ lu ñu gis ci yéen lu particulier waaye nag comme gone lañ woon kilifaay wax de ci kilifa nekkoon na kilifa réew ci ci kilifa yi mu ne ma amoon na booba lu nu foogoon gisoon ci yéen daal lu wuteeg noonu ni meloon daal mu ne ma waaye nag maa ngi door a xam ne nekkete am na lu ngeen nu gën a woon oh. muy éducation ak euh, ñi ma wax nga xam ne mooy jëf euh, jëfi Serigne Touba jëfi suñu borom jaare ko ci Serigne Touba mu jaare ko ci Cheikh Maodo Moustapha Mbacké. Serigne Maodo Moustapha mun ta nekk ñaari jëmm mun ta nekk ñetti jëmm jenn jëmm rek la waaw bàyyee nañu ko muy doon lu am solo bàyyee nañu yoon mi bàyyee na nañu euh, xereñ gi bàyyee nañu xel mi bàyyee nañu nit bi kon organisation bi rek nan ci góor góorlu ndax lépp benn la kon euh, sëñ Abdou mu dellu rek di la santaat ndax noo bokk ndey noo bokk baay waaw euh, moom xam na li may wax ah, ndax euh, kii waajuram lépp lu mas a lu mas a boole man lay jëkk tudd doo ko cete ak mbaax weesul loolu te boobaak léegi amul benn bis wala waxtu benn waxtu wu ni wumpulante mu saam liggéeyal nañ ko de liggéeyal nañ ko bu wér a wér waaw li ci des rek ñaan mu yàlla gën ko fay yàggal ci ku mas toog ci xalaafatu bu Cheikh Mouhamadou Cheikh Gaynde Fatma mu yàgg fi loolu te wér loolu rek la ñaan waaye lii lu rafet la kër goo gam dem ci yoon wi rek sëñ Abdou am ña ngi koy sant ma ngi fay dox tànki mbokk ma ngi fay dox tànki jullit ma ngi fay jàppale Serigne Touba te kenn du gis jëmam ji yëpp sëriñ Touba te murit bu ne foofu nga war a tënku